ngoog ñu dikkaat ci plateau bi mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu ngeen di woy di ci ànd suñuy programme Pa maa ngi lay nuyu dalal ak jàmm. Euh, maa ngi lay fay Aïcha maa ngi nuyu aussi bépp téléspectateur bu euh, euh, suba gi. actualité politique bi dañ koy tàmbaleeg njiitu réew mi Bassirou may Faye ñu ngi koy xaar fa fële ci Sierra Leone. ñu koy xaar démb la ak ak si fi nga xamante ni moom moo di Sierra Leone le président Bassirou Diomaye moom di Julius Maada Bio di président euh, Sierra Leone moom moo ko moom moo ko dalal euh, ngir mu participer su lu nga xamante ne moom mooy collaboration wéyal diggante Sénégal ak yenn dëkk yu Afrique surtout Afrique yi dëkk yi nga xamante ni Afrique de euh, de l'Ouest la ñu nekk nee nañu nag visite bi lan moo ko sabab moom mooy intérêt commun diggante Euh, Sénégal ndaxte euh, bu ñu xoolee ci ginnaaw avril passé ki nga xamante mooy di vice président bu Sierra Leone Mohamed Juldeh Diallo euh, premier ministre Ousmane Sonko dalaloon na ko fii ñu waxtaan ci li nga xamante ne moom mooy renforcer coopération ñaari dëkk yi ba pare aussi tamit def ay accords yoo xamante ne ci fànn yu bëri. énergétique yooyu yëpp président Bassirou Diomaye Faye dina ko waxtaanee ak ki nga xamante ni moom moo di euh, bon nañ ko sax parce que démb la woon. Mm. ak président Julius bu Sierra Leone. kii di Arona Coumba Ndoffène Diouf mu ngi attaqué Macky Sall. waaw Arona Coumba Ndoffène Diouf bu leen ko jaawale nag beneen. boo xamante ne depuis euh, Senghor la fi nekkoon décédé année dernière euh, nekkoon tamit euh, moo njëkk nekk ministre du travail d'ailleurs xaw ma nag mais je pense que turandoom la Aly Ngouille Ndoffène Diouf bi moo nekkoon conseiller Macky Sall nekkoon fi tamit ministre des mines moom démb si lu nga xamante ni moom moo di ndaje bi amoon Touba nga xamante moo nekkoon trente-sixième Euh, édition euh, magal boo xam ne dañ ko déjee Buur Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf euh, si seen famille la bokk moom rattewul benn yoon Macky Sall nee dañ ko gañe rek mu daw génn dëkk bi bàyyi fii ak ñi nga xamante ni ñooñu la àndaloon te loolu ku am courage du def loolu Ousmane Sonko nga xam ne dafa ko doon tuumal guddi ak bëccëg moom mu ngi clean léegi euh, defatul dara daanaka fët bi ci Macky Sall la nekk ndaxte moom moo cax-caxatee alalu réew mi euh, ba noppi tamit euh, ñi nga xamante ne noonu la doon gérer surtout li nga xam moo di droits humains yi loolu loolu dañ ko dañ ko salfaañee mu wax tamit ci nu nga xamante ne moom moo di yoon Euh, que Macky Sall ñëw fii yoon def euh, liggéeyam parce que nee dafa trahir ñi nga xamante ne ñooy topp sénégalais. mu mel ni état am na njëkk yu ñu wàññi ci wàllum dund gi. loolu lañ doon wax sànq démb ba léegi moom moo nekk daanaka débat bi euh, entre Cheikh di ah moo di ministre des finances ak ministre commerce ñoom ñoo defoon conférence de presse conjointe di def wax annoncé li nga xamante ne moom mooy njëkk yu ñu wàññi. lu jëm si tabaski muy jëm si sucre huile euh, yenn denrées yi daal euh, nee nañu wàññi nañ ko te état Sénégal euh, mu ngi ci def lu nga xamante ni moom moo toll ci cinquante trois milliards si suñu xaalis Euh, loolu nag ñu ne sori na trop diggante 2022 2023 nga xamante ne état Sénégal dafa dépensé woon 338 milliards euh, ngir dundu gu cher gi yokk ci subvention yi nga xamante ni si énergie bi la si 600 600 euh, milliards Euh, la euh, nekkoon ñii nag autorité yi bees yi ñoom lu ñu wax moom mooy enveloppe bi 53 milliards virgule 4 euh, lu toll suñu ko comparé ak 142 milliards yi nga xamante ne 2023 la woon ñu ne loolu lu am solo la Euh, wante dañuy xaara fa euh, sóoraale tamit li nga xamante ne moom moo di yenn yenn investissement yi nga xamante ne bëgg nañ ko def bu ko defee ku soob nag si wàllu fiscalité wala leneen leneen bu ko defee ñu mën a euh, jum jëm dëgmal ci liggéey bi Euh, nappkat ya nekk fële ci Sangomar. Hmm. ñoom nag euh, dañu inquiété wu. waaw bu fekkee ne kii nga xam ne mooy Birame Souleye Diop ministre pétrole day photo ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ngir wane première goutte pétrole loolu historique Sénégal. ñi nga xamante ne ñoo nekk Sangomar di pêcheurs yi ñoom kontaanuñu lool ndaxte nee nañu. Euh, kontaanuñu kontaanuñu dara. parce que hmm. tout simplement na moo ko waral mooy Sangomar foofu la ñuy exploité pétrole bi. Hmm. ñoom nag dañu wax ni seen jën yi. dafay dem ndaxte defaruñu leen lenn pour euh, seen ñu préserver leen seen li nga xamante ni moom moo di napp gi parce que foofu zone pêche boo xamante ni la bu am solo moo xamante ne ñi nga xamante ñoo nappkat yi dañ ko doon euh, dañ ko dañ fa doon fréquenter lu bëri nga xamante ne moom mooy seen directeur ba def benn coalition directeur muy tudd Abdoulaye moom moo nekkoon seen porte parole. moom moo di zone de pêche yi dañ koy wàññi bu baax a baax euh, te Sangomar loolu rek la am pour dund pêcheurs yi nekk foofu donc di réjouir pétrole génn baax na. mais di lor ñoo xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi liggéey foofu noonu loolu ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ndaxte plateforme bi dafa puissant si wàllu courant si wàllu lumière. Mhm. loolu euh, day attirer li nga xam ne moo di jën yi foofu te euh, ñoom euh, di di pertement bi yëpp ci ñoom lay lay dem lu bu ñu sañoon daal ñu waxtaan ak ñoom ba nga xamante ni état Sénégal dañ si gis boppam. nappkat yi tamit yi nekk foofu tamit ni ci gis seen bopp. loolu am na solo jërëjëf Pape Malick ñu jaajëfal la ci xibaar yi bu baax a baax. Mm-hmm. dañuy rebondir par rapport ak inquiétude nappkat yi nga xamante ni ñoo nekkee fële euh, ca Sangomar mu mel ni c'est quelque chose bi nga xamante ni waroon nañ ko prévoir. bon pour man si euh, phase d'exploitation bi euh, phase d'exploration. ci la war a bokk parce que bu fekkee ne da ngay ins da ngay installer plateforme si géej Euh, bon onshore c'est important que nga sorale li nga xamante ni moom moo di parce que bon y a eu beaucoup de je parle de marée humaine et mais par exemple. Mm-hmm. les pêcheurs sont impactés euh, li nga xamante moom moo di ressources halieutiques yi nekk. ci mm-hmm. suuf tamit euh, pareil. mais ñoom dañu wax ni zone boo xamante ni la écosystème bi foofu noonu am na fa doole bu baax a baax. Euh, du coup bu fekkee dañ fa installé dañ fa plateforme ak transaction yi nga xam ne baro bi dafay ñëw di dem donc mën a daax ay géej yu bëri ce qui est raisonnable euh, maintenant man alternative bi xaw ma xaw ma lan lay doon mais ce qui est sûr mhm. ce qui est sûr c'est que ils ont raison euh, bu fekkee da nga nekkoon foo xam voilà bu fekkee da nga nekkoon foo xamante ne da nga da nga da nga nekk foofu di napp di fa jël sa ressource et puis du jour au lendemain amatuloo droit jigéen parce que tamit il faut savoir que foofu noonu euh, zone boo xam ne dañ koy quadriller. Euh, kenn dootu fa am accès waaw kenn fa am accès. du loolu mën na leen mën na leen a mën na leen a xañ ñu napp mais ce qui quoi qu'il en soit bon raison. waaw xool xaw ma nag état Sénégal nee na ñoom ni discussion la ñu bëgg ak état Sénégal. Mhm. je sais pas xaw la mu nekk contour discussion yi. Mhm. il faut que aussi tamit ñoom ñu xalaat leen. parce que aussi tamit dañoo am njaboot et puis bon ils ont besoin de ça. tout à fait bu fekkente ne napp rek mooy seen liggéey. Mhm. dafay xaw a doy waar bu ñu nappatul la la ñuy def. ana la la ñuy mën a yóbbu ca njaboot ba donc on attend on et on espère que. Euh, ñu war a waxtaan ak ñoom nañu waxtaan ak ñoom. et que ñu jéem a trouver solution parce que ñoom aussi euh, voilà mën naa ne c'est une partie de la population bu nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum. Mm. Euh, pêche bokk na si ba pêche mën nañu wax pêche secteur yu xam ne gën a ënn xaalis si mm-hmm. Sénégal. donc mm-hmm. voilà il faut préserver tout à fait alors njëg yi ñu ngi ko doon wax wàññi wàññi wàññi wàññi am na lu ñu jot a wàññi. Mm-hmm. ñenn ñi jàpp nañ ñi wàññi wàññite bi si si si si dérisoire c'est insignifiant. mais mais mais soo xoolee. mais je me dis que voilà c'est déjà benn premier pas bu nga xamante ni teg nañ ko. xëy na il faudra que ñu defaat leneen. ma loolu mën naa mën naa accepter par exemple c'est insignifiant par rapport à Macky Sall lu mu doon def si. Euh, parce que dégg nga 600 milliards pour subvention énergie euh, 123 milliards pour affaire recherche de la ville rien que l'année dernière. Mm-hmm. bii nii ñoom seen enveloppe milliards la. xam nga soo comparé 53 enveloppe 53 milliards yu ñu suppeeku si denrée yi nga xam ne ñu ko wàññi ak par exemple euh, juróomi dërëm euh, fukki dërëm euh, li nga xam mooy ñetti dërëm ak et cetera et cetera tu vois que c'est insignifiant mais pour man bon il y a mieux à faire. peut-être nag dañoo trouver groupe moto xam nga tamit bu fekkee dañu la fal. Mhm. bon y' a beaucoup pression y' a beaucoup pression. Mhm. autour que surtout que ñu leen di wax di naan leen waaye yéen a fi waxoon ne soo leen toogee da ngeen di wàññi et tout il faut fallait que ñoom ñu réagir man noonu laa ko noonu laa ko gisee quoi peut-être. je sais pas mba xam ce sera mais pour man aussi il faut que il faut que ça s'améliore mm -hmm. wàññi bi ñu gën ko renforcer parce que tamit bon après tout on va bi ñu ne sans 90 la doon jar ñu ne wàññi si ñetti mhm. loolu c' insignifiant quand mooy boo mhm. xoolee enveloppe 53 milliards bi. Euh, je le reconnais effort yi nga xamante ne def nañ ko parce que ponctionné fii ponctionné fii pour pouvoir euh, euh, essayer bon jéem a diluer un peu ça c'est très bien quoi mais il faut que bon ñu ñu gën a gën a avancer et puis gën renforcer lu nga xamante ne moom moo di baisse de des prix parce que aussi tamit après tout bu fekkee da nga jógee comme ni ma ko waxee cent franc nga ne bon waa nekkatul cent franc mais wàññi boobu bon c'est bien mais tamit bon euh, il faut que il faut que mu gën a mu gën jëm. ñu gën ko jëmal daal waaw mu gën mu gën fës rek. Ah. li ñuy xaar mais mais mais ñi nga xamante ne gis naa ay commentaires yoo xam dérisoire yoo xamante ne mhm. bon naan ay ñetti dërëm affaire yooyu noonu bon. 53 milliards enveloppe bi 53 milliards donc il faut prendre ça en compte. Mm -hmm, donc, 53 mm -hmm. milliards c'est pas rien. Mhm. xam nga mhm. bu fekkee état dafay Euh, ay effort pour jéema a wàññil nit yi dund bon il faut applaudir xam nga moo gën ngay ngay jëm saltel bu fekkee mënuloo si wax loo xamante lu jëm kanam et de mhm. critique positive mhm. bu vaut mieux que daal ngay kii parce que état Sénégal ñëpp ko bokk et puis bon suñu wàññilee yow da nga siy profito man dama si profito keneen ak mhm. keneen profito ñetti dërëm yi buñ ko xeeb wala euh, deux cent yi ciy wàññi wala deux mille yi ñuy wàññi sur telle ou telle chose buñ ko xeeb mais eh, nañu gën a améliorer mbir mi bu ko defee sénégalais gën a mën a sentir li nga xamante ni moo di wàññite bi alors Pape dañuy enchaîner rapidement ak ah. suñu dossier du vendredi léegi-léegi rek bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi les dossiers de Pape Malick Thiam comme chaque vendredi ñuy tànn benn actualité ànd ceeg Pape Malick mu gën koo yaatal Pape Malick yaa ngi koy annoncé sànq tey war nañu euh, focus waxtaane li nga xamante ni moo di les relations entre le Sénégal et la Palestine. waaw le Sénégal et la Palestine pourquoi parce que gis ngeen fan yii yëpp bon am na benn ndaje boo xamante ni euh, jug nañu euh, di wax ni Sénégal ak Palestine fokk mu ñu wax ci et Sénégal ak Palestine. si euh, relation relation bu am solo lu ñu def rek moom mooy xam la mooy Palestine d'abord ak Israël la mooy coow li mhm. voilà Palestine mu ngi nii yaa ngi gis euh, léegi c'était en 49 les accords de Rhodes moom mooy euh, li nga xam ne Palestine at fa dëkku arabe yi ak Palestine la guerre des six jours nga xam dafa départagé waat carte Palestine carte bi ñu gis nga xamante ne moo nekk genre lu mel ne bon banaana lay nirool moom mooy Palestine israéliens nag en orange orange bu foncé bi moom mooy Israël Palestine moom moo nekk bande yi nga xamante ni orange bu kii la orange bu effacé la euh, moom moo nekk euh, Palestine euh, wante yaa ngi gis guerre de coupure aussi en ñu koy woowee guerre de guerre d'octobre aussi guerre boobu changé lu bëri si loo nga xamante moom mooy mhm. relation entre état yi entre Palestine ak Israël si la waa Sinaï bu nekk Égypte ñu récupéré ko parce que c'était les états arabes ak ak ak Israël premier intifada moi c'était en 2000 ci la li nga xamante ne moom mooy euh, comment dire waa waa Palestine doon xeex Yasser Arafat ñu reconnaître ko en 88 mooy OLP waa Palestine. Mhm. Euh, fii nii mooy les accords d'Oslo en septembre 93 entre Yasser Arafat Shimon Shimon Peres euh, deuxième intifada. Euh, voilà 2000 2005 et tout et actuellement euh, li nga xamante ne moom moo di euh, guerre bi. Mm-hmm. moom daal ba léegi depuis 7 octobre 2023 yaa ngi gis ay milliers de morts yoo xamante waa Hamas ñoom ñoo song ñi nga xamante ne ñoom ñooy israéliens yi. Mm-hmm. boobu ba léegi nag waa Israël ñoom ñoom ñooy song ñi nga xamante ni mooy waa Palestine bon dañuy dem. rek euh, def si def def nañ benn élément diggante Sénégal ak Israël wane nañu li nga xamante ne moom Sénégal Sénégal Palestine. Mhm. Sénégal Israël donc Israël si la bokk sax mais Sénégal <laughs> Palestine. Euh, xool relation yi parce que depuis Senghor am nañu ay relation relation donc parfois dañuy nekk ensemble parfois ñu séparé wu parfois ñu nekkoon ensemble donc on va essayer de voir les cinq présidents yoo xam ñoo fi jaar ba si Bassirou Diomaye Faye lan moo nekk euh, véritablement les relations entre le Sénégal Palestine ak Israël tamit parce que ci lañ mënuñu leen génne ci histoire. Mhm, mhm. ñu dem si xool loolu. état Sénégal dafa yàgg a jàppale peuple palestinien muy diplomatie bu yàgg boo xamante ni ati at la woon li ci mujj mooy quinzième sommet OCI bu Gambie nga xamante ni mois de mais bi passé la woon Bassirou Diomaye fay rappelé li nga xamante ni moo di position état Sénégal ci xeex bi dox diggante Israël ak Palestine nga xamante ni jamono ji ci Gaza lañu ko concentré ak soldats israéliens yi nga xamante ni depuis 7 octobre ba léegi dañu songo palestiniens yi bilan bi nag mu ngi ci 35000 morts la président Bassirou Diomaye Faye waxee communauté internationale ci xeex bi xeex bi nag sénégalais yi xam nañ ko bu baax ndaxte depuis président Senghor Palestine Sénégal daf ko mus a jàppale 1989 Abdou Diouf bokk ci njiitu réew yi ci Afrique ci ñu njëkk ràññee Palestine comme état ci li ci topp ci la waa Palestine amee ambassade fii ci Dakar 1977 ki nga xamante ni moo doon jiite xeexu Palestine bi di Yasser Arafat Senghor jox ko passeport diplomatique muy politique boo xamante ni yeneen njiitu yi réew mi la moom la wéyee la moom mu ni Palestine dafay rester nekk Palestine wax ni Israël mën nañu am seen état bopp Palestine tamit mu nekkoon sababam loolu yàqu bi nga xamante ni ay xeex yu taratar am na ci diggante Palestine ak Israël Macky Sall bi mu ñëwee wéyal li nga xamante ni moo di politique jigéen état palestinien wante atum 2010 yi ak xeex yi nga xamante ni am na ci ñaari diggante dëkk yi ñu ni ngir état palestinien am état israélien am dina am ay jafe-jafe bu baax a baax surtout dëkk bi soxal Palestine ngir intérêt Israël ni dafa dumóoyu ñi nga xamante ni ñoo di palestiniens yi discours boobu sax moom la ñu dégg bi nga xamante ni Bassirou Diomaye Faye mi ngi doog a toog ñu ni deful dara ngir jàppale ñi nga xamante ni ñoo di palestiniens yi boobu ba léegi nag def na ñeent fukki ak juróom-ñett Sénégal di xeex ci watu Palestine moom sax moom mooy jiite kuréel gi nga xamante ni ñooy aar ak ak yelleefu doomu aadama palestiniens yi ngir bañ leen a seetaan nag kuréel yu bare yu nekk fii ci Sénégal jàppale ñi nga xamante ni ñoo di palestiniens yi nee nañu ñu respecté l'histoire du Sénégal ëppale Palestine ak lu mënti xew sinon rek dinañu trahir ki nga xamante ni moo di Senghor ak yeneen président yi voilà am na benn euh, kuréel bu tudd euh, coalition pour la cause Euh, euh, coalition pour la cause palestinienne ñun benn kuréel la boo xam ne dafa bëri ay imam boo ñoo xam ne ay religieux lañ mhm. dañoo amoon benn conférence de presse euh, lu ñu wax nag moom moo di ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, waa Israël Sénégal reconnaître leen comme état terroriste boo xam ne dafay bombarder ñoo xam ne ñoo di euh, palestiniens yi tout le temps euh, ñu dem seetaan lañ. Sénégal moom mu dong moom dong mooy réew mi nga xam ci àddina ba léegi moom mooy réew mi ñuy dénk kuréel bu Nations Unies di taxawal. kuréel boobu moom li muy dafay saytu ak ak yeleefu waa Palestine. Sénégal ci boppam war na fexe nag dakkal li nga xamante ne mooy ay jokkalanteem. moom ak Israël bu tabaski daal jub Israël kat day jëmawut ay xar di wax dama koy baaxee ñi nga xamante ne ay imam ak ay ulema lañ fii Sénégal ñu ne leen yéen imam ak ulema wu Sénégal bu leen nangoo jël yooyu xar ndax xar yooyu kat defe naa ne ci dereetu waa Palestine lañ ko fi indee voilà muy noonu euh, lu mu wax rek moom mooy Sénégal rompre li nga xam mooy relation diplomatique. Mhm. entre euh, moom ak ak waa Israël. Mhm. beneen bi moom mooy xari tabaski yi nga xamante ne nañ koy joxe <laughs> chaque chaque année. Mhm. Israël di koy joxe notamment ambassade bu Israël fii Sénégal doon ko joxe ñu arrêté ko di koy jox yi nga xam mooy association yi. religieuses yi ak euh, imam yi yaa ngi gis daal ñoom daal lu ñu bëgg et puis am na 19 association bi il y deux jours ñoo xam ne ñu bind lettre. Euh, Bassirou Diomaye Faye ne ko euh, mu euh, arrêté di liggéey ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di israélien yi mhm. merci beaucoup Pape dossier bi am na solo ñu war ci taxaw saytu ko waxtaane ko diggante Sénégal ak Palestine mhm. mën naa ne c'est une longue tradition de solidarité mais bu ñu interroger histoire mhm. dañuy gis ni que les deux premiers présidents muy Diouf ak Senghor c'est-à-dire solidarité bi dafa dëgëroon trop ah. dañu nekkoon ay alliés ñu constant mm. entre temps qu'est-ce qui a changé parce que à part ñoom ñaar on a eu trois autres présidents ah. entre temps qu'est-ce qui a changé ba des fois ñuy sentir benn benn benn soutien bu modéré loolu dëgg la et puis bu bu lucide la hmm? mm-hmm. que Diouf ak Senghor parce que ñoom ñoo teg jalon yi on parce que Senghor Euh, moom moo reconnaître euh, parce que OLP kenn reconnaître woon OLP mooy organisation de libération palestinienne am Yasser Arafat da ko doon jiite 88 mm-hmm. lañu ko reconnaître mais Senghor en 77 Yasser moom moo ñëw fii mu jox ko passeport diplomatique sénégalais pour mën parce que Yasser Arafat monde entier yëpp dañ ko jàppe woon comme terroriste mm-hmm. Abdou Diouf aussi bu ñëwee au pouvoir fin fin fin 80 mm-hmm. euh, lu mu lu mu def moom moo di en 89 mooy quatre vingt huit quatre vingt neuf. Mhm. fay décembre quatre vingt euh, décembre quatre vingt huit. Mhm. bon comme dañuy basculer ba ba quatre vingt neuf. donc mhm. Abdou Diouf moom moo reconnaître officiellement li nga xamante ne moom moo di état euh, état palestinien. xam nga mhm. donc loolu c'est important si ñaari président yi mais bu ñu tuwee si Abdou Diouf y a eu beaucoup d'intérêt en yoo xamante ni sur le plan affaire u sécurité mhm. sur le plan affaire u euh, alimentation boobu mooy denrée première nécessité yi bu Abdoulaye Wade xaw a tergiversé un peu mhm. xam nga mais du encore que bon relation yi am na amélioré mais c'est en dents de scie Macky Sall bu mu ñëwee euh, pour la première fois Euh, wala l'une des euh, rares fois ñu coupé lu nga xamante mooy relation diplomatique entre Sénégal ak euh, Israël à cause de la Palestine mhm. c'est en 2016 mhm. une année plus tard en 2017 mu ñu renouer les relations parce que tout simplement Israël de comme que dafay continuer di coloniser li nga xam ne ñoom ñooy palestiniens yi territoire mhm. palestinien yi ñoom ñu voté benn résolution boo xam ba Nations Unies ne ñoom ànduñu si si la rupture yi amee Bassirou Diomaye Faye nag bu mu bu mu ñëwee tradition bi moom Diomaye nag bu mu ñëwee mhm. yaa ngi gis dimanche passé Ousmane Sonko sax mu ngi doon wax publiquement ah. mhm, mhm, euh, que il faut que Bassirou Diomaye Faye sur sa euh, par rapport à sa diplomatie. Mhm. mu rangé wu si côté Afrique du Sud ak ay Nicaragua ak ñooñu ñooñu nan def moom mooy ñooñu dañu wax ne mooy depuis attaque 7 octobre ba nga xamante ne Israël dafay ko di pilonner euh, Gaza. Mhm. Euh, que ñu dem ces pays euh, poursuivre ki nga xam mooy état d' Sénégal si loolu war a tënku. je ne pense pas que nag Sénégal parce que Ousmane Sonko moom moo ko wax que Bassirou Diomaye Faye def ko je ne pense pas que Bassirou Diomaye Faye dina jël risque boobu parce tout simplement y' gars yi xamuñu bu baax mais ñu ngi ci affaire sécurité bi. Mhm. xam nga ñu ngi aussi tamit euh, def benn offensive en Afrique parce que à chaque fois dañu gis ni pays africain yu bëri dañoo xeex Israël donc ñoom sax euh, amoon benn tentative boo xam ne ñoo bëgg observateur lañ ci fi nga xam mooy Union africaine waa Israël donc loolu yëpp c'est pour avoir de l'influence sur les pays li nga xam moo di moo di sur les pays africains ba dernièrement sax euh, en en deux mille Euh, novembre deux mille euh, deux mille euh, vingt trois. Mhm. pays bëri dont le Sénégal ñoom dañu dañu dañu abstenir ci lu nga xamante ne moom moo dañuy condamné Israël par rapport ak lu mu def que soo am nekk Gaza ak léegi si Jordan yi nga xamante ne ñoom ñuy continuer di. Mhm. di di di koy di koy pilonné mais boo boo xoolee daal. Mhm. relation yi c'est je t'aime moi non plus. à chaque fois dañuy ànd parfois du ñu du ñu ànd mais bon vu que y a des stratégies ay affaire kii nu ñu ko waxee surtout si affaire renseignement affaire espionnage aussi. la mhm. di euh, on le dit. Mhm. Euh, dañ siy opéré wu lu bëri et puis c'est un état très puissant dans le dans le monde. Mhm. Euh, si côté boobu. bu ñu taxawee tuuti ci Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee lu mu jàppoon mooy pour une solution à deux états. waaw solution à deux états moom la ñaa nga xam ñoo di puristes yi ñoom la ñu mus jàpp. et puis koo xamante ne légaliste nga aussi loolu nga mos a parce que Palestine moom moo nekkoon Palestine après euh, lu ñuy woowee diaspora bu mooy guerre première guerre mondiale en mhm. après en 47 Israël est reconnu officiellement en am indépendance en 48. Mm -hmm. euh, si la en si la teg pour la première fois solution à deux états que état Israël am que Palestine am. état boppam am euh, am état boppam. Mhm. mais loolu après Israël dañu dem Mélenchon bu mu ne parce que dañu wax ne solution à deux mooy Israël état Palestine état kenn du ko laal mais Donald Trump moo dafa transférer Tel Aviv euh, capitale kii ne léegi reconnaître nañu. Mhm. comme américains yi toujours ñoom ñoo nekk si ginnaaw Israël que nañu euh, li nga xam moo di Jérusalem. comme euh, comme capital. Mhm. Euh, loolu jéem a jéem a compliquer de plus li nga xamante ne moom moo di solution à léegi nag solution à deux états israéliens yi bëggatuñu ko sax dégg. Mhm. Abdoulaye loolu lay prôné Sénégal aussi loolu lay prôné jusqu'à maintenant. Mhm. et puis pays yi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo mës a jàppale Palestine loolu la ñuy mais. te loolu ñëpp jàpp nañ ne mënul nekk parce que Israël léegi en fait j'avais même y a plus y a plus d'état en fait mhm. de terre pour que nga wax ni am na solution d'état parce que lu palestinien palestinien yi mhm. ñaari côté yu ñu amoon mhm. euh, moom moo di euh, Gaza côté Égypte mooy doon Sinaï ak tamit euh, côté Cisjordanie moom mooy boo jëlee Syrie Jordanie côté yooyu yëpp foofu dañ fay coloniser di coloniser di coloniser moo xam ba mu des ay portion de terre Euh, ba palestiniens yu bëri presque dañ fa xat ba ñi mhm. nga xamante ne dañuy dem si yeneen dëkku arab yi di fa dëkk bo mais solution à deux états a prôné état Sénégal si lignée mhm. boobu la mos a la mos a nekk bien que y a eu euh, avant. Alors bu ñu gënee avancer un peu par rapport à ce conflit entre ces deux euh, ces deux pays. Mm. Euh, ak Palestine. mu nekk guerre bu yàgg. entre ñaari dëkk yi lan moo tax ba léegi mënuñu arriver à à une solution. parce que c'est un problème religieux. entre les juifs ak les musulmans xam nga y a des pays arabes la ligue arabe ak euh, ñeneen ñeneen bootu si ginnaaw boobu bien sax année yi passé kii woon na daloon na parce que mhm. gisoon nañu am na c'était historique ay états yu nga xam ne ni comme Arabie Saoudite wala états yu nga xamante ni comme ay Qatar mhm. ñu dem di liggéey ak ñoo xam ñoo di israéliens ce qui inimaginable il y a vingt ans euh, mhm. vingt ans plus tôt euh, donc mënoon na mun mën nañu wax attaque Hamas Hamas nga xamante ni benn parti politique la boo xam parti politique bu radical par rapport ak lu Fatah. Mhm. ñoom ñoo songu le 7 octobre 2023 ñoo xamante ñooy yi ak coow li gën a coow li gën a commencé waat. Mhm. Euh, loolu tax ba nga xamante ne ñu jàpp ne ñi nga xam ne ñoo di palestiniens yi euh, surtout les les gens de de de Hamas ay terroristes yi nga xamante ne loolu loolu dañuy wax ni paix mënul mënul nekk. Mhm. mais fu mu ne nii daal boo bëggee dégg pour ñu am paix. dina compliqué trop ba pare aussi tamit euh, dina compliqué parce que y a les yaa ngi gis euh, dernièrement euh, ñi nga xam ne iraniens yi dugg nañ si mm-hmm. xeex parce que mm-hmm. doon nañu ay missiles yi nga xam ne ñooy ñoom ñooy israéliens yi donc loolu ça complique toujours toujours le le problème man dama jàpp ne bon c'est bu nga xamante ni foofu je dirais pas accalmie dafay am intifada dans les mm-hmm. années deux mille deuxième intifada et après y a eu l'accalmie même en 2014 xam nga ñu dugg si ay mosquées Euh, voilà mosquée Al Aqsa ñu dafa dóor fa ay lacrymogène dàq mhm. musulman yi fa nekkoon donc c'est un truc très compliqué mhm. waaw chaque chaque presque deux mois sur deux mois da dégg ñu ne benn palestinien jàpp na benn israélien wala benn israélien dóor na ay kii léegi ñi nga xamante ne ñooy israélien dañuy dem di coloniser ay terres tout le temps xale yi nga xam ne imaginaire depuis les depuis soixante ans xale yi nga xam ne ñuy jàngi du ñu am fa dañ leen contrôle israélien yi ak ay armes lañ leen fi ko mënoo ko dul man je suivais un ci affaire bi mhm. mais c'est la psychose tout le temps tout le temps tout le temps nit yi dañuy dañuy ragal tout le temps à chaque fois sérén yi soo ko déggee rek sa fit bi dafay sa fit bi dana dina tëf et puis mhm. bon voilà bon ñaan rek mu am accalmie et ñu jéem ko gérer à l'amiable mais solution à deux états nga xamante ni moom la ñu bëri di di prôné mhm. que loolu moom moo nekk euh, la solution pour man loolu mënatul nekk parce que israéliens yi ñoom parewuñu pour pour def loolu pourquoi amul benn organisation internationale bu mën a intervenir mais mais y a mais y a l'ONU ONU mu ngi fi. waaw ñoom ñoom ñoo teg ñu li ma lay wax ne. mooy mooy solution mais est-ce que ONU pas euh, euh, est que tey. organisation boobu waaw ONU nag su fekkee moom mënatul def mënu mënu ci dara. Hmm. xaw ma kat moo ci mën dara. et puis su dara est-ce que attaques yi dina continuer. non et puis euh, le gros problème loo xamante ni. Euh, peut-être épine la si euh, pied wu si guerre bi moom mooy moom mooy les États-Unis mhm. xam nga suñu wax ONU bon États-Unis ñoom dañu fa puissant mhm. donc ñoom ñoo nekk si ginnaaw États-Unis dañuy soutenir ñi nga xam ne ñoo di israélien mhm. mais maintenant ces derniers temps ñoo xamante ne surtout le camp démocrate ñuy commencé di commencé lucide parce que xam nañ aussi tamit li nga xamante ni moom la israélien def biir Gaza c'est pas normal du tout. Ah population trente cinq mille morts depuis sept octobre ba léegi. ba fay je veux dire ba mën naa sax plus. waaw ah, trente cinq mille morts parce que chiffre yooyu noonu c'était depuis la semaine dernière. Mhm. donc te aujourd'hui ñuy continuer di pilonner di pilonner ba léegi même su fekkee Hamas sax dañoo téye ay otages. Mhm. israéliens mhm. mais États-Unis ñoom ñooy le gros problème parce que ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di xamataal bi. loolu moo tax état arabe xamante ne ñoom ñoo di israéliens yi loolu moom moo tax état boo xam si un état nucléaire boo xamante ne bon songu ko doo soo koy songu aussi tamit da ngay xam nu ngi koy mhm. nu ngi koy songo pays yëpp mënuñoo mënuñoo mënuñoo liggéeyu ne dañ koy ah. song donc fu ñu dóor nucléaire moom bon voilà loolu moom euh, kenn souhaité wu ko quoi États-Unis on dit souvent que fu ñu nekk rek c'est parce que am nañu ay intérêt yu nga xamante mu ngi en jeu wala boog gis nañ fa seen intérêt lan mooy seen intérêt à ce que ñuy soutenir l'Israël bon xam nga juifs yi sont trop puissants dans le monde et puis Isra euh, boo xoolee États-Unis administration américaine que soo xam ko au Congrès wala a mhm. beaucoup de juifs. Mhm. yoo xamante ni dañu influent ñooñu dañoo am ay mbokk euh, fi nga xamante ne parce que mënuñu wax théoriquement que euh, que Israël juif yi fa nekk presque bon jëkkuñu fa ne ñoo nekkoon si mais am nañ mhm. ay mbokk États-Unis dañ fa dañu comme ils ont ils sont influents Euh, dans la politique si politique américaine politique étrangère. bon boo jëlee ay euh, comment dire ay. Euh, ay autorités yu ba bëri américaine ay juif lañu xam nga donc y a ça y a lien la que mhm. du ñu bàyyi ba du ñu bàyyi euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy les les israéliens loolu tax na ba nga xamante ne euh, bon y a y a d'autres camps yi nga xamante ne sur le plan parce que euh, ñi nga xamante ne ñooy américains yi d'habitude ñu am coopération militaire surtout affaire armement entre Israël ak États-Unis ba nga xamante ne du ñu di di ñuy di ñuy lëkkaloo ba pare aussi tamit dans la région moom mooy pays arabe yi que soit boo ne boo jëlee surtout surtout Iran Euh, ak Irak aussi tamit. Mhm. dañu dañu dañu ñu nga xamante ni ñoom ñooy américains yi donc. loolu moom moo tax aussi tamit ba fu ñuy renforcer côté boobu parce que su fekkee ne euh, États-Unis dafa sore donc nga jël ay base andi ko fi nga xamante ne moom moo di Israël ay base américaine donc nga xam ne koo xamante da ngay jéem a fonto mun nga génne mhm. loolu aussi tamit boo ne am na ay enjeux stratégiques yoo xamante ne américains aussi tamit loolu lañ si président mais euh, le gros problème nga xamante ne moom moo am moom moo di y a l'influence de la religion juive que américains yi y a beaucoup yoo xamante ne ay juifs lañ te tamit affaire bi et puis c'est un problème très sensible mm-hmm. voilà yaa ngi gis ñoo xamante ne am na dëkk yoo xam ne il suffit nga wax ay juifs affaire arabe rek ñu tëj donc ah. c' est un problème très sensible loo xamante euh, soo si da ngay xam ni nga koy waxee fooy taxaw aussi da ngay xam ni ñu koy mm-hmm. a waxee nii librement. Mm-hmm. fokk ci fo bekk euh, fekk fa puissant. Mm-hmm. soo waxee benn affaire dañ lay nekk bon yow da nga ne ñoom yu bëri yoo xamante ni c' est une loi boo xamante ne. Euh, ko waxee mën nañ soo si waxee dara. alors ce sera peut ma dernière question la Chine nekk une autre puissance puissance mondiale. ñoom lan mooy seen position euh, ci conflit bi. bo Chine euh, ñoom xam nga demuñu Amé ñoom américains yi itam. defuñu neen xam nga. Euh, c'est c'est intéressant parce que par exemple soo jëlee Syrie. Mhm. Russie. Mhm. Euh, Iran ak Chine ñoom benn côté la ñu même Afrique du Sud en Afrique c'est parce que Afrique du Sud ñu ñu tëj euh, ñu jàpp dignitaire ñoom Netanyahu ak ñeneen ñoom premier ministre euh, israélien ñu ñu ñu jàpp leen tëj leen yóbbu leen yóbbu leen donc Chine si côté boobu la la la la côté boobu la gën a féete parce que aussi tak c' est comme ça ku nekk sa intérêt ngay ngay mm-hmm. ngay jéem a euh, euh, mais seen position position bu am solo la parce que tout simplement su fekkee état yi nga xam ne dañuy état arabe yi. Mm-hmm. ak que soit mu nekk Iran wala yeneen wala yeneen dëkk yi nga xamante ne dañuy jàppale euh, pays ligue arabe yi nga xam ne dañuy jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy palestiniens yi. Mm-hmm. ñu sonal Israël. dañuy sonale waale États-Unis te suñu sonalee ñaari dëkk yooyu aussi tamit ñoom dañuy dañuy bénéficier wu nee nañu xaw ma pas xaw ma nañu koy wax de toute façon fekkee sama xarit nga ma nekk sama xarit man lu ma bëgg moom mooy nga naxasal ko parce boobu man maa si bénéficier ñoom enjeu bi moom mooy loolu bi ñu pilonné ñoo xam ne ñooy yi wala les les israéliens ñoom a ñoom ñoo si gën puissant mm-hmm. mbir mi noonu la tëddee et puis il savoir que ku nekk am nga foo xoolee euh, que soo mu nekk Érythrée wala Éthiopie. Mhm. ñoom aussi am nañ fa ay euh, ay ay ay am nañ fa ay base militaire yoo xamante ne euh, c'est pour un peu contrôler parce que comme américains yi ñoo tamit am nañu ay base ñoo tamit dañuy am ay base pour fekkee éventuellement intervention su amee tamit ñu ko parce que aussi enjeu bi foofu laay terminer enjeu bi dans le monde moom mooy lan mhm. moom mooy américains yi ak ñi nga xam ne chinois yi dañuy concurrence wala mën nañu wax la nekk nga ne chinois nekk ba léegi américains ñoom ñoo koy préserver. Mhm. mais chinois yi aussi tamit ñoom euh, bu fekkee guerre dafa éclaté ko dañuy wax troisième guerre mondiale mën na jugee foofu. entre euh, États-Unis ak Taïwan affaire yooyu noonu bu fekkee euh, problème dafa éclaté wu foofu. ay base nekk nekk dans le nekk ci ci ci maire mer ci ci mer rouge. Mhm. donc foofu noonu. Euh, mën nañ fa bu fekkee am nga fa ay base militaire mën na la mën na la mën na la mën na la avantage mais sinon bon loolu moom moo tax ñu nekk ñoom tamit ci corne de l'Afrique bi ñu ngi foofu plein ak ay base militaires yoo xamante ni c'est pour au kaw où mm-hmm. voilà merci beaucoup Pape. merci jaajëfal naa la bu baax a baax. Mm-hmm. dossier bi am na solo ñu taxaw ci gën a yaatal. et quand on voit les images quand on voit les enfants. Mm. ñu leen di rey ñu leen di gaañ xale yi terrorisé ça fait mal. dafa nekk ay images yu nga xamante ni image yu triste la et voilà je pense que Sénégal dafa war a gën fësal li nga xamante ni moo di son soutien. par mm. rapport à l'État Euh, à maa ngi naan état sax par rapport à la Palestine. waaw merci beaucoup Pape ma bàyyi la mais dañuy wax l' état palestinien ah. gars yi dañu koy palestinien parce que après tout bon c' est état. mais c' est état boo xamante ni c' est un peu disproportionné. waaw c' boo teer fii teer fii loolu c' un peu compliqué c' un peu compliqué. ma bàyyi la en quelques secondes nga euh, tëj dossier bi. bon pour wax ne bon comme que dañoo wax relation entre Sénégal ak Palestine bon euh, que a surfer si nga xamante ni moom moo di. Euh, moom moo di diplomatie traditionnelle bu Sénégal parce que mhm. le Sénégal a toujours soutenu ñi xam ne ñoo di palestiniens yi mais soutenir palestiniens yi ça veut pas dire aller à l'outrance wala à aller à comment dire aller comme ça xam nga il faut aussi savoir que les États si affaire intérêt la ñuy dox mhm. que ñun mhm. peut-être on a des intérêts yoo xamante ne si côté Israël xam nga wala euh, du vice versa donc euh, préserver lu nga xamante ne moom moo di moom moo di relation yëpp pays bu mun ti doon. Mhm. Mhm. Euh, quelques pays qui puissent être donc loolu moom moo gën a moom moo gën a am solo suñu ko defee rek boobu dañuy nekk ak parce que am ak jàmm yeneen dëkk yi moo gën ngay nekk en conflit ak ñoom parce que bon loolu c'est pas c'est pas bien. bi di wax ne ñi nga xamante ni ñoom ñooy organisation euh, moom mooy coalition pour pour la la défense des des des causes palestiniennes. Euh, ñooñu aussi tamit ñoo ñeen dimanche 23 juin. Mhm. Euh, dañuy amal benn randonnée pédestre bu mag boo xamante ni ñuy soutenir ñi nga xamante ni ñoom ñooy palestiniens yi woo Bassirou président Bassirou Diomaye Faye euh, ngir mu gën taxaw ngir mu gën a taxaw sur la question. et puis Sénégal et amoon Sénégal aussi. waaw aussi ah, dans le dans le dans le papier bi. Mhm. que Sénégal depuis quinze moom mooy présider fu si Nations Unies li nga xamante ni moom mooy comité comité aar yàq àq ak yelleef doomu aadama palestiniens yi. donc loolu di prouver rek ci euh, mhm, mhm. mouvance bu logique la ñu nekk. la ñu merci beaucoup Pape. Mhm. ñu jaajëfal bu baax a baax dossier bi am na solo mbokk yi dañuy daal di jël une petite pause ma proposer leen benn clip et juste après ñu dikkaat ci plateau bi woyub suñu aventure matinale.